maaleykum gars yi maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp bépp presse bu fi teew tey pour sama sortie de clip ak euh, américain yi may liggéeyal aussi tamit seen resto bu bees buñ tijji nii jox wax ñu ngi jégalu bu wér a wér a wér a wér ak si moment bu ñu fekk coronavirus bi et tout xam nga mu nekk lu métti lu difficile te ñu ngi nii ñëw max obligatoire distance bi respecté et tout di leen baalu ñëpp ak di leen wax ñu ngi jégalu bu wér si déplacement bi et tout di nuyu Sophie di nuyu Azaïd parce que on travaille ensemble Sophie bi moo nekk koo xam ne dama ko sonal trop depuis ba ma commencé je lui fatigue ay appel yu nekk laa koy def Sophie dama bëgg lii waxal lii defal lii garaawul foogoon naa ni sax clip bi du am ba nii mais Sophie jàpp na si lu bëri mooy ñëw na ma t'inquiète loo bëgg wax ma léeg lii léeg lii léeg laa affaire yooyu ah waxal loo bëgg. loo bëgg ma wax su ma waxee ñëwaat stressé ñëwaat na ko suufi hé lii est ce que wóor na ñii est ce que xam nañ lii est ce que toogal rek ñi dinañ gérer lépp mais tey sama fierté mooy nit yi dañuy ñëw di seetaan clip bi naan qualité image bi baax na te loolu moo tax ñuy def clip loolu mooy sama fierté ak yenn scénario yoo xam ne métti woon na ma def ko def naa ko mu nekk loo xam ne lu nice la damay remercier aussi tamit ami américain yi may liggéeyal ça fait bientôt quatre mois j'ai signé avec mais depuis lors ñu ngi def benn travail bu bu bu am njëriñ quoi si man par rapport au temps man dama doon filmer ak téléphone léegi jugee naa si téléphone Redcam moom mooy filmer et ça coûte cher mun naa ne sax ñu ko am Sénégal bëriwul c'est quelque chose sénégalais ne toogoon nañ di ma xaar si ay affaires yu bëri ay gëj nañ dégg Bouba Dambaaw si lu mu nekk mais dañoo nekkoon si projet corona bi ñëw amul def concert amul def lu bëri affaire yu bëri mënu ma xoon def par la il m'a demandé du temps boo xam ne war naa leen ko woon pour ñun gis sama liggéey déjà gisoon nañ sama liggéey mais li fallait lekk mu jëloon temps pour ñu def sama premier clip ak ñoom pour ñu gis sama liggéey ak yeneen ak yeneen toutes les mercredis maa ngi def karaoke ak ñoom les shows du samedi ak PNJ maa ngi ñëw maa ngi assisté maa ngi géré gis nañ liggéey bi moo tax tey lii nii la mënoon demee si nga tey gars yi déjà commencé na fees te kenn heure bi sa jotagul c'est quelque chose di leen remercier encore une fois il fait chaud maa ngi jégalu bu wér a wér sama diggante ak waa Dream nag mun naa ne liggéey bu ma liggéey ba yegsi moo tax mu am ko quoi dama génnee sama single def ay vidéo waa Dream waa Dream ma def benn vidéo boo xam ne ak Zos la woon Zos la lutteur léegi waa Télé Dakar ñoo couvrir woon ñoo couvrir émission boobu ñu ne ma. ñu ne ma affaire bi resto américain lay amee man leen waaw dinaa ñëw ba ma ñëwee gisuma woon sax américain man maa commencé di interviewer Zox affaire bi explosé far yàlla naxate boos bi romb na gis na ma léegi ba ma gisee mu laajte gars yi kii kan la et puis c'est normal ku ñëw sa kër di nga laajte kan moo ñëw sama kër léegi ba mu ma laajtee kii kan la man yëguma ko sax benn waaye la laajte kii kan la lu tax muy interviewer Zox parce que Zox moom moo ma njëkk sax dream parce que am na link ak boss bi quoi léegi ba ma interviewé Zos ba pare après nit ñëw mu ne ma boss bi sant ba léegi arrêté wul di laajte yow la mooy sa te gis na ni da nga am talent li ngay def da nga ba ma ñibbi ba affaire bi am deux mois pàtte woon naa sax américain yi ma toog un ñu ne am na benn film bi waaj a ñëw cas communautaire y a un gars qui s'appelle maanaam moom ñoo bokk parcelle sama grand mi ngi fii sax maa ngi koy passage léegi moom moo ñëw mu ne ma buuba foog nga ñëw si film américain yi parce que soxla nañ la. parce que woon naa boss bi sa vidéo ak sa nombre de vues yi nga am YouTube et tout il est intéressant après ma ñëw présenté wu ak boos bi ñu wax lu sérieux semaine bu stop si la ma waxee ay affaire mu arrangé ma mu ak ñoom mais sama wax ak ñoom la moo ko indi jour bu may defal interview si seen resto la ma gisee quoi. mais boobu lu mag gara feccal maraxee lu bees taax. kar feccal maar mooy am ngeen problème yéen ñëpp non gara feccal maar mooy ñëw leen ngeen fecc en anglais sama làkk bopp buuba dëmbaaw dama am samay propre parole buuba dëmbaaw mooy buuba dëmb la continuel dëmm la waaw continuel léegi moo léegi moo wan na la continuel di wax rek. au fait dëmbaa bi dama mosoon def benn vidéo ñu laajte ma nan la ñuy waxee dëmm en anglais ma ne dëmbaaw léegi nag ñu bëri dañuy foog ne mbaaw laa dëkk alors que dëkkuma foofu c'est waaw dañ ma doon laaj ay vidéo nan la ñuy waxee ceeb nan la ñuy waxee mboroxee na la ñuy waxee suubu kànja après ñu yegg si nan la ñuy waxee dëmm ma ne leen dëmbaaw depuis loolu si la gars yi jëlee moo woowu boobu dëmbaabu euh, sama diggante ak artistes yi nekk Sénégal jàmm ak salaam parce que dama ñëw nekk seen frère te ñoom dañ ma bëggal seen bopp moo xam Sidi Diop moo xam Wally même pas avant tabaski bi yëpp damay tasante ñoom sax man damay étonné quoi dama naan man lan laa def ba ñu war ma bëgg mais naxate lu jot yomb quoi damay ñëw Wally mu ne ma man sa numéro wër naa ko ba sonn man xaw ma woon ndax Wally Seck dina mun a man a soxla sama numéro tu vois ay nit yu bëri dañuy ñëw na ma artiste bi da la bëgg man damay foog ne ay caaxaan la ñu tase lii ñu kott moom jël sama numéro na ma ñëwal kër ga ñëwal lii ñëwal laa kon tey am na lu ma wone moo tax am lu ma wone même pas cinq mois laaki Chaaki Rumba ak yenn vidéo yoo xam ne ay court métrage koor gi affaire yu bëri quoi. loolu booba say say tenue ak say peinture ak say maquillage ak say kalamanengaat lépp man la lu may wax gara feccal maa la xee laaki Chaaki Rumba the pop line laakin boro ceekin boro laakin boro laakin boro the right now loolu yëpp man la tu vois ma may toog inspiré wu na tey yëre bu ngand lay sol dàll bu ngand chaîne xaama dem jëli benn golo parc ba téye ko sama loxo xaama jëli benn mbaam téye ko sama loxo lépp c'est buuba dëmbaaw quoi may toog su ma tëddee guddi di inspiré wu di xalaat mais yeneen yu ma nit di yokkal et tout c'est des idées yoo xam ne ay xel la nii rek mais lépp c'est buuba dëmbaaw en terme. oui Il nous a montré ce que personne d'autre n'a fait. Il est comique et aussi il attire la population, la jeune population. C'est pour ça qu'on a choisi Bouba. quest euh, ou sa fonction de Damian Les deux. En fait, son habillement est comique. Lui en tant que ses paroles sont comiques. Donc, il attire Nous voulons développer la population jeune, les aider. Et Bouba en fait partie. Bouba les, le, nous aide à amasser un grand public jeune. Euh, il sera en même temps acteur. On, on, prévoit de faire plein de films avec lui, de faire des... Euh, il, est déjà dans le programme de karaoké. et c'est surtout de le faire découvrir à l'international en fait.